<laughs> ah mbokk yi ah, nuyu naa leen di leen wax ne rek am ah, ah, di leen wax bi nga xamante ne ak suba ba léegi am ñu ngi wër am di dem si place bare bare am demoon nañ fi nga xamante ne mooy laajte kundaa yi di nga ñaa ñu demoon fi nga xamante ne mooy naka la tuddaati di laajte kundaa bakkan ak ci kundaa ministère am dem nañ fi nga famille yi ak fandi nag comme ni ñu ko doon defee di wër di dem ci kër di dem ci mbedd yi am di wër ah gis naa fi ki nga xamante ni ah moom mu moom si maire UDP la ñu gën koo xamee ci am ah, ku nga xamante ni moom Mbaye Sakho ngejo a sumole bebe je ye carte fayle foko pare ma a ye ni faye jo nyaadile a ngaje de ngaje le ko mobe fintita le carte fayo fayo ka nyama mhm. sa allah mhm. ala men nyanta sila mhm. ala o tombo ne fabanta ko mi diya mo le ndoro bare ala men ngani ayo di adi wala bare sa allah o fem fem be sira ni sato ala ma e ala ma kala sato e firindi alma kela fondin kew ni nyaato tat mhm. ala ni kila ni ma barko ya jele ko fo mol fintitan ha mol fintitan ka taw fayta ka taw fayta nyama ka taw fayta ita jikita la ko jumala bibi ha mi to wobe ala le bu man mhm. ha ngani yo wobe ala le bu ya fay jumala ha nga fay me ye bitun sai wobe ala le bu man so wobe ha wobe ndar wobe tele bu ko ha ben tele bu ngalo de bar tun sai wo to to ala bu do mhm. ha mun be felela ko mala bango ah mun be felela ko mala bango te se ba sato mo ya mari ni mu duniya ko lete ni manjari fitina la amanjari sonkala amanjari kelela ndo lebu ba kelin fa kelin ni moy fata bi ntol dammal le be jobade la ni me kulli soto ntol dammal le be nyowali na ka kulli yorke oto ni ko membe o jam duniya mu hakil to do ni man duniya ko lete amanjari sonkala amanjari kelela ala e men tombo ayo tombo da fa pare alin kana fambatandi on kana kuntun tema na ke ba kilin fa kilindi gambiya be ba kilin fa kilindi ali ŋa ke ŋani ye kiliŋo ti ma ko nga banko de da ala men meŋ taŋ miŋ ma ŋa makoy a banko de da wo daŋ a ar ma ala sa banko fa kai rol ar ma banko fa la nemo la ar man tan kala fitino ma fitino be la ariŋ fen fen ka ar ma masakalla la ya wula ala ni alkurano toromo a no mi mo le mo na ni

kan nga yaakaar ne mooy lii. lii ñu bàyyi ko si loxo yàlla. naka nga gisee élection bi. bu ko xool ci nawet bi nag. da nga koo foog dugg léegi. waaw. naka nga gisee élection bi des nit ñi génn nañ saali wala génn saali. génn bi des na. génn bi des na Gambia sax amul élection. ñoom li ñu ko am si élection bi mooy président. te xam nga bii mooy élection. bii mooy tax ñu liggéey sa dëkk. bii si ne naa nawee bii si ne ñoo war a dig yëpp waaye ñu bëri na ñu ñoo génn. ko wax ñu ne su ma añee pare su waaye su ma añee ba pare doo toog a démba ñun démba lañ tooga man koomba laa di ka waaye fii laa suma góor bi teeñu ma ko démba laa tooga su ma añee fiis ko waaye teel kenn jiitu ma amba ñu gis ne ñu bari bari tey si yoon bi dañ doon katandu di feeñ te ay xool dana la ñu tànn ah, loolu moom ma feeñ dégg naa ne jën laa sa xaalis tey ëllëg du ma am si yow waaw mooy loolu rek léeg-léeg boo defee nonsense boo wiinee toog def nonsense lan laa lay wax si yow hmm. lekk naa li ba war a wax mooy suma suma kàddu gi mooy xaalis bu ma jël si yow hmm. loolu lañ war a bàyyi xaalis du wax ji liñ tëraay seet ñi hmm. ñoo liggéeyee suñu dikka bi ko moom du pour ñun la waaye suñu sët yi ak suñu doom yi ñun suñu wàll wéy xale yee tax waaw dañu war a góorgóorlu ñu nekk a benn ñu jàppante gisal Sénégal ah waaye ñun nangu ñoo def loolu ñun nga nga nga nga mën a sotti réew ñi nga suñ ceeñu suñ jikko yi li fi nekkoon def rek mooy ñu wàcc rek amul benn différence loolu rek moo fi nekk waa waaw jërëjëf sa kàddu nga wax sa kàddu bu mujjee rek. li ma wax si nañ génn si ñu jàppalante liggéey suñu dëkk sa dëkk kenn mënu la ko liggéey ñu sa bopp ñu bàyyi wax ju sew ñu bàyyi ñu mu mujj luñ bokk a liggéey amul soose ba amul joolaa ba amul ñu ñëpp a fi am fii kenn ëppalewu fi kenn ñu ñëpp si jumbaay yi fi ñu ñëpp Gambien si nañ génn liggéey te bàyyi wax ji te roy yeneen dëkk yi ñu mun a dem moo gën fi ñu nekk rek nekk nii rek di ndam ndam a nga si sa kàddu muy doole waaye boo jëlee tey suba tuxoon rek ëllëg laa la mun a wax. du ma la mun a wax dara bi ko jël naa sa xaalis bi xaalis si yow léegi kañ nga maa liggéeyal doo def dara da ngaa toog ba sa temps def jeex nga dem sa yoon maa ngi tudd Aïssa Ndaw waaw wela si si sin bi wala bi jàng ah, ah. ah bokk liggéey nañ leen bokk liggéey ah soo ko tegee nañ leen bokk liggéey ah, ah kooku mu nekk Aïssa ka doon ah xaalis bi rek ah xaalis bi bi jaru ko money bi daf ko si boy si rek waxtaan ak ñoom laaj leen ndax ah

Ousmane Line ak Toms Line a ah, fekk fi booy yi tamit di leen laajte seen ah, xalaat ci élection bi comme ni ñu ko nekk di defee ah, di dem si koñ yi si nekk nuyu naa la. naka nga ñu ñëw fii nii fekk la fi tey nekk a bési sànni carte ñu ñëw di dem si koñ yi di gis dafa poo ba nit ñi nangu ñëw ñëw génn si sànni ba pare gars yaa ngay jënd nit yi pour ñu sànni ndax loolu lu war a am la war a wax. loolu moo war a am moom. ndax normal bi. candidat dañu war a campagne rek. boobu Mariama boobu moo suufee ah moo am di best ministre te mun naa développer dëkk bi mun naa di énergie bi ñu yaakaar mun na ko def saa yu waaye xaalis mun na ko def boo joxee nit yi xaalis rek di rëdd ci bopp bopp bopp kenn fa nekk ak yàlla mun naa dina def loolu loolu yow try to convince people bon soo leen loolu ndax am bi ak ko ok ah, jërëjëf alhamdulilah rafet na donc loo am loo siy sànni rek. ma siy sànni yàlla naa liggéeyam def nañ koo jaamu daal. Hmm. te nekk naa ba ñoom ñoom ku nekk nga foree sa candidat bu jeex. nga ne moom seen élection moo mel noonu kuñ ci wuñ tam nga xam ne wuñ leen la jarul guloo jarul coow waaw li ko fay ñu ñëpp a ko bokk su jeexee ñu dem ñu nekkaat benn si jàmm. foos foos foos foos. waaw man kay sànni naa bu baax a baax waaw kay sànni naa Masa nih, whoa, whoa, siapa yang ya? naka nga gisee sànni bi parce que maire yi ñeneen yi tamit ñu leen a war a sànni bi kii na sànni. waaw waaye fii ñu suñu ispale di kii. waaw kii di ngeen yónnee woon sax ñu ne lañ koy bidda. ñëpp uh-huh. a génn bidda. wax dëgg ñu uh-huh. xool jox leen. maam maanaam daal ñëpp sànni na. ñëpp sànni ah boo paree fii yu bari de. ñuy mm. def rek. te wisaane bi léegi it amul benn kiiti kaata dara. lan nga pour am ñaax pour askan bi pour yooyu nga xam ne politique bi la rek war a ñoo nekk di miiroo yeeg ñaaroo yeeg yooyu. Mm. Mm. ma dee du ma ko bu ma gisee rek naa foog ne nag damay arrêté ba tey saani bu am nii laay mel rek ak toppatoo te ñoo mel jaxu Jési Faye si ñoomeen Guinée borom réew mi woon naka la Yaya Jammeh yëpp waaw man aw ma si benn kàtt kàtt du dul ñaanal yàlla dëkk bi yàlla def si jàmm suñ xale yàlla Amin yaa rabbi ak wér amiin ñu amul yal na leen yàlla day ya rek laay jàll amiin ah, amiin ah, a kooku nekk maire bi nga xamante a Fatou Ba nekk fii ñu dugal ci kër gi rek a seet gars a wax ak ñoom a a kon ko waxee rek ah, a ñu emale ko fii am ni lañ ko doon defee di dugal si kër yi di dem place ko place di waxtaan ak gars yi di laajte lañ ko si élection ñu ngi ñëwee wari keñ dem na ngeen saa li tëj li am si kanam tuuti rek ah, dinañ annoncé soos yi di ngeen dégg figéen yi ñuy célébrer dinañ célébrer ñu wiinu tamit ba léegi rek ñu ñaax leen di leen wan ne ah, élection nii la wii na luus la te ku ñimee ah, ku kuy dem si xare rek xalaatal ne suñ la jamut bal rek di nga jamaate bal te buñ la jamee bal rek nga dékku ko assumer say responsabilité te xam ne Gambie suñ Gambie la ñun ñëpp a ko boobu ñun ñëpp ñoo ko lii te képp ku ci KMC tamit képp ko fa am ndaw rek ñu ànd ak moom liggéey su ko defee Gambie dem si kanam Gambie suñ Gambie la ñu ñëpp moom di leen ñaanal jàmm yàlla mi am jàmm yal na may ñëpp di leen wan ne yal na képp ku wiin rek yal na la jig nga liggéeyal ñu suñ réew mi am réew mi dem si kanam xiiroo bee ŋaaroo bi jaru am di wax ne na fi yàlla def jàmm seen xarit la woon Ramatoulaye ki ko gën ko xamee si Guèye Njoro ñëwoon fii tey si Banjul ànd ak suma caméraman bi ah ki nga mel ni ñoom Xadijatu ñoom Lamine ñeen Serina di leen gërëm di leen sant su suba ba léegi ñu ngi wër di dem si different police station am di leen wan na lii rek lañ gàmbeentale mënal askan bi ñu jox leen dig daje ba ay yeneen i événement ay yeneen i xew-xewi jamono ñu génneel leen ko ah te di leen wax ne ngeen toog rek déglu xaar ressources yi ku wiin rek dina incha allah dinañ leen ko jox si kanam tuuti jërë ngeen jëf